liggéey hein, parce que liggéey bi moo laaj parfois moo tax xam ne dañuy nekk ci euh, mission et tout et tout donc euh, en tout cas tey dañuy waxtaanee si nga xam ne mooy Aliou Cissé bi nga xam ne nag dafa jël duut baaraam attitude bi nga xam ne nag kaaf am na ko am loo xam ne samp na jëm ci éliminatoire yu am septembre 2023 ci coupe euh, de plutôt 2022 donc pour CAN 2023 bi aussi ah yéen kaay bi di stade ci xatam gu njëkk tey gars yi on peut faire le point dafa ne la chance du champion parce que Sénégal tey moom moo dóor Rwanda 1 but à 0 demain donc gis ngeen ko donc tey moom la gars yi match la boo xam ne nag métti woon na ci Sénégal yi lool lool gannaaw nag ba nga xamee ne Saliou Ciss daal bloqué situation bi daal di pour ça, bu dans Mané Google. Il y a a bi de record mais les Lions évitent le guépier des guêpes ah donc euh, record li indi ci loolu noonu wax ci Sadio Mané mi nga xam aussi moom permettre ñii di euh, donc Sénégal daal di dóor Rwanda nek premier donc de sa poule Sadio Mané qui actuellement est meilleur buteur avec 4 buts gars yi nek aussi li nga xam ne Sport indi na ci ay leeral ñëw na le Sénégal bat le Rwanda sur le gong aussi ah joueur yi nga xam aussi mooy joueur Floride yi nekk ci États-Unis ñoom tey dañ ñëwoon ah démb donc loolu la am coow samedi la woon ah gars yi démb lañ ko fësal ah ne ñoom du ñu sol maillot bi nga xam borom ñaari tur yi loolu indi coow gars yi nag laaj may laaj tay moy ki kan la li ma mën na jox comme indice mooy que fi mu nek ah donc ki na àdduna mais nekkoon nag capitaine nekk également njiit ci club bu mag boo xam ne gars yi ràññe nañ leen donc moom kan la donc kii laay laaj gars yi ngeen wax ma kan la ak aussi ban taxawaay la ci daal di am ci lu ni mel mais aussi keneen ki ma leen laaj mooy que ne gars yi kii kan la kii kan la bu bët baax na dama leen laaj gars yi kii kan la donc gardien wala ak joueurs yi ñaari joueurs yi nii donc kan la ci donc kan ngeen ci mën a xàmme ma xool ndax gars donc seen kii donc à ah, mu non aussi ki nga xam donc euh, officialisation euh, Luka Modric mi nga xam donc l'erna na le jii la officialiser euh, contrat boo xam ko ne avant kii di Tchouaméni di ñëw dañ ko officialiser ngeen gis ko ak Florentino donc ba 2023 Luka Modric donc il sera joueur du Real de Madrid après nag peut-être mu dem ba clubs ou club wala daal di xool ndax day de carrière ou pas ki nga xam ne Gareth Bale aussi donc président Getafe nee donc agent Gareth Bale la ko proposé service Gareth Bale parce que Gareth Bale mom dafa bëgg a Espagne bëggut a jógee Espagne donc nous nag nee une ngi xool faisabilité bi ak aussi. aussi yan matuwaay la ak ñaar la garabee di laaj par rapport aussi lan lañ ko mën a daal ci lu ni mel. Denis Sebayo aussi hein mon gars aussi Hein, moom tamit dafa bëgg actuellement am temps de jeu bu daal di doy ndax euh, fi mu ne dafa bëgg coupe du monde bi ci Qatar 2022 et que loolu noonu ak euh, Real Madrid de na ne bon bëgg na toog Real mais tamit temps de jeu bi daf ko soxla pour mu am chance am daal di jouer coupe du monde moo tax gars yi fi mu ne nii ñu ci lam ki nga aussi mooy Angel Di Maria donc wax nañ leen Juventus de Turin moi ci teg gëtëm mais fi mu ne d'accord uñ ci wàllum euh, li nga xam contrat yi parce que Di Maria mon un an de contrat la bëgg maximum maximum deux ans waa Juventus aussi côté coopéra yo lañ d'accord nee nañ aussi ki nga xam ne mooy Hernandez mi ki teg pour mu d'aller Barcelone qui ramène aussi moïse Mohamed Salah donc Salah choisi comme étant donc le meilleur joueur de la saison foofu noonu Liverpool mon lañ taal mu donc meilleur joueur de l'année l'Égyptien bi nga donc actuellement il a tout raflé au niveau donc euh, de euh, foofu noonu Liverpool aussi que journaliste yi nga xam ci Angleterre moom jox meilleurs joueurs Alexandre Lacazette est suba nag gai yi dañ de visite médicale pour officialiser le li nga signature du côté de l'Olympique Lyonnais bi nga ramener fa la donc d'aller on demeure dem Angleterre daal na fay dellu si au mi nga xam ne ci xelam ne dina fa mës a ñëwaat ki xam ne aussi mooy Newcastle actuellement gars yi donc ñoom seen maillot bi ñu war a fubalee année bii ñëw moo nekk nii ñu daal di koy fësal donc nekk maillot boo xam ne aussi maillot bu rafet la Newcastle aussi nekk ci ay yu bëri yoo xam ne bokk na ci ki xam ne mooy Ismaïla Sarr ci seen euh, viseur la nekk mais ba tey dara leeru ci Sven Botman ngeen xam ne actuellement Milan AC gars yi moom daal moo ci tegoon euh, gëtam def ko priorité Bodman ak Walid Lille ba xaw bari Milan AC ne ñoom mën 40 ba 45 millions moo tax na aussi yeneen club yu melni Manchester United Newcastle aussi ñu ngi leen ci tuddu ki nga xamné nak moy mooy de Ligue donc actuellement mën na peut-être nek la recrue de euh, Chelsea parce que nga xam ne nag mooy Tondela jox na ki nga xamné Todd Tondela jox na kii donc di euh, ki di euh, excusez-moi Thomas Tuchel lepp lo xamné dal moy mooy lingue yi gu bari 230 ba 250 millions d'euros texta bi nako jëndal ko la neex jox nañ la priorité Gabriel Jesus mi nga xamné ne gars wax leen ko Arsenal da ci teg gëtam di commencer ci waxtaan ak mom moom aussi aussi intéressé na Real de Madrid bi nga xam ne ñoo bëgg mu nekk doublure ki nga xam ne mooy donc Karim Benzema goal Benzema mais Mikel Arteta moom daf ko jël daf ko priorité pour mu daal di fay ñëw kii di Keylor Navas moom nee ah, il lui reste deux ans de contrat du côté du Parc des Princes donc leer na ci bëtam am na loo xam ne jarta sax di ko wax contrat moo ko wax dafa bëgg a ñëw foofu et que moom homme de défi la et que moom dafa bëgg a ñëw nekk imposé wu foofu du côté du Paris Saint-Germain je pense que ne kii bu ñu ko joxee occasion dina détrôner kii di John Donnarumma parce que ki nga xam ne mooy Navas il a l'expérience de la Ligue des Champions par rapport à ça aussi Milik aussi gars yi gannaaw bi nga xamee ne kii Dimitri Payet mom wax na né mom dafa bëgg tok fofu ci Marseille Milik également mom nee bëgg-bëgg moy tok ci aussi de côté de Marseille parce que nee li nga xamné ne aventure ak relation Marseille jéxagout te xam na euh, jox nañ ko fa confiance ki nga xamné nak moy donc Luis Suarez actuellement nee nañ Marcelo Gallardo du côté de River Plate woo pour mu daal fay ñëw mais aussi nee nañ convaincre nako projet bi mais ki di euh, Luis Suarez ba légui joxagout li nga xam ne décision am ne fan la wara jouer ki nga xamné aussi moy Pierre Menès gannaaw bi nga xam ne procès ko waroon jàpp euh, dàq nañ ko nak ba li nga xamné moy donc mois de euh, mars 2023 Pierre Ménès bi nga xamné donc dañ koy toppee walum donc tout euh, la la nu mu ko mëna waxé sax donc en tout cas walum jigen jigéen lañ koy wooyee ne moom ay attouchement ak yu mel donc voilà la doon def yi nga xamné nak moy club bu nek ci États-Unis donc nak né club plutôt baseball ñom namit ah dañ leen a waxoon dañuy def fête pour ñu sol ay maillot LGBT moy mooy ñaari tur yi ñoom ñu bañ ba teud ci suuf lool nak gaay gis né à part Idrissa Gana gay am na ñeen ñu ko def def ñoom tamit luñu ñu moy mooy que c'est pour des raisons religieuses ñom neubutuñ ko dañ wax carrément ne c'est pour des raisons religieuses moo tax ñu ko té dara fekku ci donc day wane ne ay Idrissa Gana Gueye lañu yapp mom lañu la bëggoon def ko mu nekk ah, agneau du sacrifice xam nga tuba bi ñom notamment français dañu dañoo ñom ño gëna mus ñëpp mais aussi à Cissé bi nga xam mom dafa duut baram li nga xam moy donc wa CAF nee na CAF li jëm ci walum éliminatoire CAN 2023 nga xam ne yeneen match yi 2 euh, septembre la wara amé nga xam club yi équipe nationale yi démon ci coupe du monde ñom ñoom ñoo nañ ko jëma dakh bañu ba calendrier bi Aliou Cissé nee calendrier bi baaxul parce que li nga xam ne mooy équipe nationale yi du ñu mën a am lii di ay match amicaux yu baax a baax a baax et que tey moom pénalisé na ko Aliou Cissé parce que nee na programme am nga xam dafa jëm ci coupe monde mënu ko teg et li muy wax aujourd'hui mooy que ne lii yoon mooy que ne il espère que ne euh, waa CAF danañ déglu loolu on espère aussi que ki nga Augustin Senghor dina ci japp hein ah, momi nga xamné nak bokku na ci non moy vice président Boukaf, CAF mu wax ci lolu parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, benn côté aussi 7 En ah, Sénégal aussi sincèrement ils sont très en retard par rapport à nga moy match de barrage et tout De qui nga xam dem nañ ci coupe du monde bi de africain yi ñi nga am seen match amicaux yi di et que donc la CAF aussi ñom nek nañ lo xam liggéey boo xam franchement euh, CAF franchement moment ah, ils sont incompétents pour dire le mot juste parce que li nga xamné moy euh, meilleur joueur africain ba légui xamuñu ko ni ñi sen programme bi xamuñu ko pays européens ñom ils ont l'avantage